Euh, car macha allah euh, actualité en débat dellusiwaat na tey euh, maanaam ci. bës bi maanaam ci euh, alxames ji actualité en débat di euh, seen émission buy euh, saytu maanaam l' actualité nationale et internationale ci Bichri TV international et donc ñu ci waxtaanee ci ay mbir ay mbir yi nga xam ne moom moo xew ci actualité maanaam te di ci jox tamit possibilité yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu ngeen ci participer bu baax a baax a baax a baax macha allah. actualité en débat man mi Abdel Malick ak euh, soxna Fatou Cissé ak Taya Moussa Camara ñoo fas yéene si waxtaan wi di di euh, leen indil nag li nga xam ne moom mooy euh, li gën a fës ci actualité bi maanaam balaa may tàmbali damay nuyu soxna Fatou Cissé salaamaaleykum soxna Fatou. maaleykum salaam Abdel Malick Cissé maa bu baax a yaa ngi ci jàpp. waaw maa ngi sant alhamdulilah di ziar mbokku téléspectateurs yeeg euh, internautes yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jox seen wàccuwaay comme d'habitude comme ni nga ko waxee waxtu bi teeroo rek xel lay daal dem ci actualité en débat toute l'actualité nationale et internationale sur Bichri TV di ziar bu baax a baax itam euh, yaa Moussa Camara mi ñu bokkal plateau bi. jaajëf naka sa matinée. bon matinée bi ça a été ah. ñu ngi woon ci kawam di waar di waar. jaajëf macha allah. di waar rek. di waar di waar di waar waaw loolu neex naa dégg <laughs> waaw euh, kon ni nga ko déggee yaa Moussa Camara tamit tey euh, daf ñu fekk si ci ci mbir mi euh, salaamaaleykum sëñ yaa Moussa Camara. waaleykum salaam Abdel Malick sunu soppe sunu xarit sunu wëllëre. Mhm. jaajëf di waale sunu jigéen soxna Fatou Cissé. Mhm. ñu ngi wax asalaamaaleykum mbooleem téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers chaîne Bichri International. di am mbégte kontante dellu siwaat ci sunu jotaay wii nga xamante ni dañuy faral di càmbar li ñuy tuddee actualité. maanaam on essaye xam nga rek décortiquer actualité bi débatri ci. donc mbégte la saa su ne ñu ciy ànd ak yéen ci boobu euh, mbir yi nga xam dañ koy décortiquer xanaa di sant yàlla di julluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ngir yàggul dara danoo jóge ci màggal daarul muxti bi. may ñaan yàlla yal na yàlla yàggal fi Serigne Mountakha Bassirou yal na fi yàgg lool xalifa maam Thierno Birahim moom Serigne Abbas. di am mbégte lool ci organisation màggal gi nu jóge su ma ko waxee rek maa ngi nuy nuyuwaale de passage Serigne Bassirou Abdoul Khoudous moom mi jiitoon comité d'organisation bi. di nuyu askanu Sénégal di nuyu ñëpp di ñaan yàlla jàmm jàmm daal di ñaan it yàlla baaxi nu tawféex rek ñu mën a càmbar actualité en débat ni nga ko euh, waxee léegi rek. waaw ñu ngi lay euh, màggal gi nga waaw mënta ñàkk. waaw euh, mënta ñàkk xam nga Serigne Touba moom dafa wax ni xam jami xal wara yaa hadiyan rada donc ñaan moom saa suñu bokkee def rek danga nga ciy dugalaale ñëpp waxuma la sax nga yem ci nit ñi waaye boo ne alwara rek mooy créature mboolem mbindeef lu yàlla bind rek Serigne Touba ñaan na suñu borom yàlla na yàlla def ci ñoom miséricorde kon na sa xel dal di ko ñaanal askanu Sénégal waaye di sàkku ci yéen ñaan di ko sàkku tamit ci askanu Sénégal ndax it dañ koy soxla waaw yal na yàlla dool dolli xéwal ak jàmm daal wax dëgg fa yàlla xam naa ne actualité en débat daal li ma gis ni moom lañ nar a waxtaanee du yomb tey de. <laughs> waaw amiin amiin amiin donc yàlla yàlla yàlla nangu ñaan car macha allah actualité en débat du. Euh, nar a yomb tey loolu la loolu loolu la sëñ Yaa saa wax waaw dëgg la ndaxte nag euh, actualité brûlante moom moo moom moom moo am jamono ji euh, waaw car macha allah mën nañ cee mën nañ cee jukki rek ay as lëf maanaam boo boo boo dégloo rajo yi tey ak démb li ñuy nekkee ci journée bi yëpp maanaam. Ah, mooy procès bi nga xam ne ah, dafa dafa dafa laal la xewoon ca Medinatul Salaam ah, mu nga am na juróom-ñaari at léegi donc dañoo nekk ci njeexitalu procès bi maanaam di daal di indi affaire yu mujj yi mbir yu mujj yi nga xam ne dañ ko war a mën a teg ci kanamu nit ñi teg ko ci kanamu ñiy àtte ba nga xam ne ci seen axulaay taala ñu mun a xool fan la dëgg gi féete car macha loolu actualité la leneen loo xam ne tamit actualité la loolu moom mënuñu mënuñu ko. ñu ko euh, jéggi maanaam mooy euh, conseil des ministres bi nga xam ne président Macky Sall amal ko démb ak kii euh, ay ay ay ministres am maanaam moom jiw jëwriñ ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk liggéeyu Sénégal daje nañu comme nu ñuy dajee mercredi bu nekk àllarba bu nekk di wax ci mbiru Sénégal te démb tamit am na ay dogal yoo xam ne jóge na ci waxtaan woowule maanaam ci ci réunion boobu maanaam ci conseil des ministre boobu loolu tamit mën nañ ko jukki ci waxtaan yeneen actualité am na dëgg la euh, ndaxte boo seetloo euh, tey la journée mondiale de lutte contre le paludisme euh, maanaam si biiru nekk tamit feebar bu doy waar feebar boo xam ne nee nañu sax moom moo gën a mën a rey maanaam li ñuy tuddee sida donc si biiru nekk mbir mu doy waar te gëstukat yi nee nañu boobu ba léegi c'est vrai que naam am na ay recherche naam am na ay ay jéego yu ñu teg mais ba léegi mbir mi changé wu ndaxte nag taux de mortalité bi amoon 2017 euh, moom la ñu seetlu 2018 te Euh, ragal naa ne loolu lay continuer tant que amul ay euh, ay ay effort dëggantaan yoo xam ne euh, peut-être scientifique yeeg ñi nga xam ne ñoo mën a lijjanti mbir moomu daal di koy daal di koy teg actuel actualité am na nee nañu benn benn campagne de vaccination massif bu am fële ca ca Malawi maanaam ak yeneen ñaari dëkk Kenya maanaam di nekk loo xam ne ay test grandeur nature la pour xool ndax mën nañoo ñàkku contre ndax ndaxte boobu ba léegi mësul am. Euh, garab goo xam ne day prévenir le paludisme moo tax mu nekk euh, feebar boo xam ne day faat kaar macha allah loolu tamit ci actualité la bokk beneen actualité bi nga xam ne moom moo moom moom ma moom euh, ma interpellé maanaam mu concerné tamit waa diaspora bu baax a baax a baax ndaxte Amnesty International dañoo génnee benn rapport démb di ŋàññ waa Liban ni ñuy traité maanaam soxna yi nga xam ne ci biir kër yi lañ di liggéey comme comme mii daan doole Euh, mu nekk rapport bu accablant ci Liban euh, lu tax mu intéressé ma parce que justement dafa am ay sénégalaises ay ay soxna yoo xam ne jóge nañu fi euh, bëri nañu lim bu takku na parce que nag ñu nag am nañu relation boo xam ne yàgg na avant indépendance donc biinante nañu donc forcément am na ay soxna yoo xam ne sénégalaises lañu donc ay yaa ay ay ay ay góorgóorlu lañu donc dañuy daan seen doole ca ca bitim réew comme ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen dëkku diaspora yi donc rapport Amnesty bi daal di accablé Liban parce dafa am ay pratiques yoo xam ne dañ koy dañ koy gis foofu noonu ci Liban di nekk ay pratique yoo xam ne dafa niro trop ak esclavagisme loolu moo tax euh, waa waa Amnesty International tiré la sonnette d'alarme ne euh, nag war ngeen ci jug gouvernement war na ci jug am na euh, benn ministre sax maanaam bu bees boo xam ne fal nañ ko ministre boo xam ne ministre du travail la Camille Abdesalaam nee na moom dina ci jub bu baax a baax a baax ci euh, ci ci ni mu gën a gaawee taxte nag yenn yi ñaaw na trop c'est trop bu demee ba communauté internationale daal lay joxoñ baaraamu donc am na loo xam ne war nga cee euh, war ngaa xoolaat sa bopp yooyu ay actualité madame Karch macha allah mais tey ci suñu waxtaan euh, man ak soxna Fatou ak yaa Moussa Camara li ñuy gën a intéressé li ñuy gën a def taxaw seetlu maanaam mooy procès bi nga xam ne dafa concerné Cheikh Béthio Thioune ak i euh, ay euh, yenn ci ay taalibeem euh, maanaam lii xewoon Medinatul Salaam donc ca ca at yële passé loolu dañ koy dañ koy nañ ko dinañ ci xool parce que fi jamono ji ca mbuur ña nga ca mbir ma te dina baax ñu taxaw seetlu ci bu baax a baax a baax donc ak ñu ma ko waxee sànq ak le le président de la république maanaam président Macky Sall ndogal yi mu jël démb daal di ay ay directeur boo limee am na fukk euh, ñaar fukk ak benn euh, post de direction yi mu joxe démb euh, ñetti soxna ñoo ci nekk ñi des ay ay góor yàlla lañu donc yooyu tamit mën nañ cee waxtaan bu baax a baax a baax maanaam léegi damay damay damay njëkki jox kàddu gi soxna faatu soxna Fatou ah. procès Médinatoul salaam bi dafa nekk mbir mu sensible wax naa sax actualité brûlante la waaye actualité très sensible ndaxte nag mhm. li mu li mu li mu concerné moo moo moo moo moo xaw a doy waar ah, waaye nag faaw ñu wax ci ndax ci actualité la ah, mënuñu ko ah, sëgg mënuñu ci bañ a wax te dafa dafa nekk tamit obligation en tant que en tant que en journaliste ñu wax ci yow sa sa première impression ak procès bi en général mooy euh, mooy lan. Mhm. jërëjëf euh, Abdelmalik di la jaajëfalaat bu baax a baax ci interpellation bi nga ma interpellé par rapport ak point bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee muy affaire euh, li nga xamante ni moo di Medinatul Salaam te bu ne affaire Medinatul Salaam ndax ñëw nga ci léegi nee nga ça fait sept juróom-ñaari at ci loolu ñuy topp mbir mi ndax jotoon nañ ko fi sax nag junj juste bi ñu gisee ni ñoom sax ci 19 cantaaku ni ni ñu doon defee ay grève xiifal ndax bëgg lan ngir ñu daal di leen di àtte yóbbu leen ci yoon ndax jot ndax da justice bu Sénégal mu ni kat longue détention ñu daal di koy gàll ci loolu gis nañ ni bi coow loolu jibee nag gis nañ ni xëy na suñu ay autorité def nañu ay jéego par rapport ak loolu ngir daal jël mbir mi nag indi ko sur la nag ni ki mardi la ubbi woon procès bi ñu gis ni diggante mardi mercredi def nañ ñaari bés yoo xamante ni ngi doon déglu ñi nga xamante ñoo di cantaakul yi biñ leen dégloo nag ku ne dégg na li nga xamante ni noonu la nga xamante ni ndax moom dafa wax ni moom bokk na ci ki nga xamante ni mën na wax ni moom mooy ki nga xam ne euh, moom di ko wax la ko faatee te na ca na mu révélé ci na ci ay leeral a ki nga xamante ni ni kat arme ba mu ko faatee sax dafa bokk ci arme bi moom Cheikh Béthio ko après loolu am na évolution bu am par rapport ni nga xam ne noonu lañ doon wooyalee procès bi niki démb bi aussi gis nañ ni jot nañoo déglu ñi ci des ñoom it gis ñu nan leen dégloo dafa mel ne ci kàddu yooyu dafa mel ne du ñu daal di ñëw daal di seetal bépp tuuma ci ki nga xamante ni moo doon Cheikh Béthio Thioune pour dire que maanaam ñu daal di leen di déglu maanaam dafa nekkoon loo xamante ni bu yàgg lañ ko waroon a def gis na ni nag traîné na durant sept ans jamono ji ñu leen di déglu ndax nag euh, qu'on se dise euh, maanaam ñu bàyyi ci xel ndax ay nit ay bakkan ñoom la gis ni ñoom ñoo rotu mm-hmm. bi bakkan yi rotoo ci ci ci ci ci mbir moomu gis na ni li ci topp lépp dafa doon ay lënt-lënt maanaam xëy na anam bi ñu leen di jébbalee suñu borom anam bi nga xamante ni noonu lañu leen faatee maanaam ay nëbb ay wurut nekkoon ci yaakaar naa loolu dafa jot aussi ñu ciy def ay taxaw seetlu quoi qu'il en soit même bu fekkente ni ñenn ci ay nit yu am tur muy këru diine muy koo xamante ni autorité lu mu ci mënti doon bu ci loxoom laalee rek quoi qu'il soit dafa daal jot ngir ñu daal di ciy def li nga xamante ni mooy arte bi nga xamante ni moo war mais aussi ki nga xamante ni xëy na moo ne ca booba mu di Cheikh Béthio Thioune ne dégg na nit ñi ni ñuy waxee ci moom maanaam anam bi nga xamante ni ci lañ koy attee ndax tamit muy maanaam ni ñu ko adopté attee koo xamante ni xëy na jamono ji nekku fi xëy na ma nga biti réew maanaam nekk xëy na nekk wér gu yaram moo ko mayul ngir mu ñëw fekkee lu ñu mais ku ne dégg na ay avocat ni ñu àddoo ak ki nga xamante ni moo doon le président ñan ni mu waxee ni kat mooy dafa daal di jot ñu atte ko ci maanaam xëy na fekkewu ko parce que li ñu ko jox comme motif ci ñàkk a teewu ci jeu atte bi ñu ngir ñu déglu ko mooy ni maanaam doyu ko kon nag daf koy atte ci ñi nga xamante ni noonu la yoon dëppoo ak situation ki nga xamante ni mooy Cheikh Béthio Thioune pour dire que xëy na maanaam jàngat bi ma ci war a mën a am rek mooy ni maanaam li ñu war di éviter mooy genre cas mel nii na nit bu nekkee ci u coowal Médinatul moo di Sénégal surtout ci justice bu Sénégal pour dire qu'il temps bu dara amee rek ku ci nekk parce mbir yi dafa bokkul ki faat nit ki sàcc ak ki def leneen xëy na ni leen war a tegee yoon xëy na bokkul ni ñu war a lijjantee seen ay dossier xëy na bokkul xëy na bu ki nekk ci loi wala ci jàng li nga xamante ni droit peut moom moo gën a habilité peut-être gën see indi ay yaatal mais pour dire ko rek am na loo xamante ni mbir moom bu amee am na la nga xamante ni moo ca war par rapport ak justice par rapport ak daan yan ngu war a teg rek dafa nekk loo xam ne dafay yelleelee ñu def ko fa mu war fan ko war a defee bañ a di éviter di tirer à longueur comme Sénégal ni ñu koy baaxoo defee ak justice bu Sénégal ni nga xamante ni noonu la ñuy doxee jamono ji man daal jàngat boobu laa ci qu'il est temps à travers cas bi à histoire bi ñu élucider li nga xamante ni moo di mbir mi fii fii ki nga xamante ni moom moo def lu dul yoon ñu teg ko daan yi war ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo ñàkk la war ca ñoom it ñu daal di koy def ci ñoom pour dire que loolu dina tax sax leneen lu fi mënti xewaat ñaanuñu ko suñu borom bi dinañ xam ni kat dinañ ko teg ci fan ko war a tegee atte ko nañ ko war a atte ba nga xamante ni ku ci ne rek di gis sa bo ci procès bi nga xamante ni des fois dañuy gis ni day nekk ci loxo maanaam xëy na ñi nekk ci wàllum yoon laale na ci man daal taxaw seetlu boobu laa ci amoon Abdel Malick waaw mu am benn expression boo boo xam ne euh, mooy mooy mooy mooy mooy feeñ jamono ji maanaam xëy na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy réeré woon nañ ko mbir moom mooy euh, par contumace. Ah, ñu koy ñu koy ñu koy soog a dégg mooy expression boo xam ne euh, maanaam ñi nga xam ne spécialiste de justice lañu. ñoom ñoo ñu expliqué ne maanaam mën nañoo juger nit te nekk fi par contumace donc loolu loolu lay loolu lay tekki mu nekk tamit lu loo xam ne dina mën a dina mën a jaaxal nit ñi mais ba tey ba tey rek. man de sama sama question mooy est-ce que euh, waroon waruñu woon mën a xaar ba euh, Cheikh bi daal di tane bu baax car macha allah ba dellu Sénégal ñu soo a def euh, procès bi c'est vrai que yàgg na juróom-ñaari at tamit ku ko toog war na mën a compléter dossier ba nga xam ne mën nañu wax lépp te mm-hmm. peut-être que njuumte du am jiixi jaaxa du ndaxte war nañoo mën a dajale élément yëpp ba mën a joxe lii di justice car macha allah Yaa est-ce que. est-ce que jàppoon par exemple euh, cheikh bi li mu li mu nekk euh, France maanaam di di faju est-ce que waruñu woon a mën a xaar tamit euh, ba ba ba cheikh bi ñëw ndaxte moom la concerné ci ci ñu ci ñu les principaux acteurs de cette de cette affaire là moom la concerné est-ce que waruñu mën mën a war a mën a xaar. damay am na justice dëdde ci kaw dafay ndox ci ay loi mhm. suñu jëf ju nekk bu amee ak jamono bu mën a ko euh, li am meurtre la coow li moom mooy fi mu ne waaw dafa euh, mel ni euh, dafa am benn euh, souci technique par rapport ak ak micro yaa Moussa ñu dellu siwaat ci moom incha allah ci ci léegi nii rek bu ñu bu ñu réglé problème bi car macha allah mu nekkoon ci ci analyse en général ci mbiru justice ndaxte nag justice moom faw mu am ci dëkk boo xam ne dañu naan dafa am constitution dafa am ay loi dafa am démocratie faw mu am justice. Euh, waaw ya yaa Moussa nekkoon ci benn lancé bu bu bu intéressant yaa Moussa euh, waaw acca bismillah waaw damay wax ni euh, damay rafetlu analyse soxna Fatou ci point bii nga xamante ni tàmbali nga ci see kàddu wax ni am na sensibilité gi ci nekk parce que nekkul n'importe kii lañ ci tudd ki ñu tudd ci coow li dafa nekk une voix autorisée dans ce pays nekk guide jiite mbooloo donc kooku ak lu mën a xew dont ñun ñëpp ay citoyen lañ itam ay mbiram du n'importe comment leen koy àtte yëf yi na juróom-ñaari at ak léegi ba tey sentence daanoogum mënuguñ ñoo wax ñan ñoo rey donte ay jamono am na ñoo xam ne mayoon nañ leen liberté provisoire waaye déggaat ngeen juge bi ne ak li mën a xew ñi rey ñi ñu jàpp moom ñoo rey moom dañ leen di àtte pour meurtre waaye cool itam mooy ñi reyee dañoo am kilifa te kilifa gi dañ ko cee tudd te mbir mi fi mu waxee dëkk ma te ñeneen waxaat nañ tamit arm gi bokkoon na ci arme yi kilifa gi yoroon yoroon waaye tey ci suba li ñu mën a am comme information mooy que ni ñaari soxnaam yi nga xamante ne boole woon nañ leen ci àtte bi ndax dañ leen jàpp ne ay témoin lañ war nañu am lu nu leeral ci mbir mi ñoom danoo laver cheikh bi ak grande o waaw te itam ba ci ñi nga xamante ni dañ leen da leen boole woon ci accusé yi am na ci taalibe yoo xamante ni ñoom danoo wax carrément nañu maanaam jëf ji tukkewul ci cheikh bi. Uh-huh. maanaam nekkul mbir mi nga xamante ni cheikh bi ci boppam moom moo nu jox ay directives. jox ay directives wala moom moo commandité meurtre bi kon ñoom mënuñu considérer que ni cheikh bi moom il est fautif il euh, coupable doon na dara ci mbir mi waaye xam nga justice samit dafa am nu muy dox ce n'est que ñoo naa taxoon ni rek euh, diw reyul man maa rey day yombee noonu déedéet kon day yomb ndax néew gu dee sax da ngay gis ni dañuy def lu ñuy tudd autopsie am déet am procédure goo xamante nii criminologue yi dañuy dikk médecin yi nga xamante ni légiste yi nga xam ne dina dina nu nekk expert ci wàllum autopsie dañuy dikk donc man li ma gis ne moom mooy mbir mi gëmuma ni jeexagum na wax nga léegi àtte gi dañ ko def par contumace terme droit la goo xam ne eh, ni nga ko leeralee noonu la mbir mi tëddee maanaam àtte koo xamante ni nekkul sur nekkul sur place mais ku ne xam na ni jamono yi ñu toll nii ñu ngi koy ñaanal wér-gu-yaram itam ndax mbooloo daf ko topp am ñu ko yaakaar ak lu mën a xew it am na taxawaay woo xam ne am na ko ci réew mi du dëgg ñu ngi koy ñaanal wér gi yaram ngir bu dul dara sax wér gi yaram gi mu ñëw mu mën a toog mu leer xam nga li ma wax ngir mu mën a leer ñu ngi koy ñaana fa mu nekk wér gi yaram parce que dafa nekk en France actuellement pour des raisons de santé wérul ñi teew ca àtte ba euh, ñoom nee nañu wax dëgg fa yàlla gisuñu ni euh, war ngeen cee mën a boole sunu sëriñ bokk ci yónniwuñu waaye mbir sentence daanoogul ndax avocat dafa am ci ñaari boor yi kii di layal ñi nga xamante ñoo féetu waa kër Cheikh Béthio moom it dina demee ci ay argument ngir prouver ni deful dara ndax man démb dina am koo xam ne damay leb tur bi sax maa ngi ko doon jéema jot ngir mu dugg en ligne ngir témoigner loo xamante ni euh, daf ma yónnee woon benn vidéo kii du de mille su suma juumul lu yàgg la. waaw nee nañ mel na ni sax cheikh bi ci boppam daan na mettre en garde ay mbokki taaliba lu may wax nag du sama wax ku dugg ci YouTube bi fekk fa. dafa toogoon ci mbooloom di leeral yu ni mel. Mhm. te xew-xew gi ñëwagul. Mhm. mbokk mi li tax mu am yéene yónnee ma ko nee na ma comme taskati xibaar nga journaliste nga am na fu cooli toll ndax am na ñoo xam ne tamit cooli li tax mu gën a doy waar dafa am ne nee nañ dañoo jug ngir saltel image cheikh bi. Mhm. ngir géem a ndaaneel maanaam taxawaay nga xamante ni yàlla defal na ko waaye ngir bañ a génn sujet àtte la ñuy wax ci affaire Medinatul Salaam bi mi ngi ci loxoy justice justice mi ngi def liggéeyam sentence daanoogul joxe guñu culpabilité maanaam féetale guñ ko ci benn boor ne diw la wala du diw waaye li ci mënti am am na ñoo xam ne placé nañ ne sous contrôle judiciaire cheikh bi ci la bokk il est placé sous contrôle ndax àtte noppeegul waaye dafa nekk ci tawat moo tax fi mu ne ni mu jul woon teew ci procès bi soxnaam yi nga xamante ne demoon nañ teew ñoom lavé nañ ko à grande eau mbokki taalibe yi nga xamante ne ay taalibeem lañ dañ leen cité ci affaire bi ñoom itam nee nañu wax dëgg fa yàlla lanuy jiiñ na cheikh bi moo nekk ci ginnaaw ngir meurtre bi wax dëgg fa la du moom léegi nag ndax ñoom seeni kàddu lañu war a gëm ndax lu mën a xew mooy loi bi mooy mujj eh, kii bi juge bi mooy mujj am mooy <laughs> mooy mooy tranché déglu ñaari parti ndax dëkk droit lañ nekk Fatou dafa wax lu am solo itam euh, xam nga Macky bi mu foloo dafa am lu indi woon coow ndax dafa wax ni ñëpp a xam nga ñëpp a waaw citoyen beeg sëriñ beeg taalibe ku mën a doon. nous sommes tous égaux devant la loi. te bu ngeen demee ci charte droit de l'homme lan la ñu wax. tous les êtres humains naissent libres et égaux yàlla sax daf noo yemale ñun ñëpp waaye nee na ñu ngi rawante ci ngëm ak ci ragal yàlla. waaye li ma bëgg wax foofu mooy euh, tey cheikh bi kilifa la dañ koy dugal ci catégorie sëriñ ndax dafa am ñu ko yaakaar moo tax ma leen doon wax tànk àtte mënta yóbbu ndax il n'est pas n'importe qui dans pays parce que li ma bëgg leeral foofu moom ma ne lu tax maanaam mbir mi traîné donc dafa am sensibilité gi ci nekk goo xam ne du du jour au lendemain dañ koy lijjanti pression mi ngi moo def wala def nous nous nous saurons affirmer cela mais nous allons partir par rapport ak fay sur le terrain mooy que ne actuellement loxo mbir mi mi ngi loxo justice coow li bëri na ci cheikh bi seetal nañ ko d'après ay nitam ak ay avocats ak ñaan ànd waaye seetalaguñ ko par rapport ak justice bi ndax sentence bi daanoo ko. waaw waaw fay de mu ngi fii fay moom euh, weesuwul maanaam euh, am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan fay weesuwul euh, li nga xam ne moom la ñu toppee maanaam ñi nga xam ñoom lañu accusé Euh, ci ci mbir mi euh, maanaam meurtre euh, nu mu tudd sax mën nañu wax tamit denc ay doomu aadama ci ay anam yoo xam ne amul légalisation kenn légalisé wu ko maanaam yooyu yëpp yooyu yëpp dafay dafay nekk ay chef d'accusation yoo xam ne teg nañ ko ci doon ci ndodd ñi nga xam ne justice teg na leen loxo jamono ji maanaam cité na leen ci ci ci ci loolu yooyu la mbir loolu moom dafa dafa nekk. dañuy fàttali rek xanaa ñaar ñi ñaar ñi génn àdduna baara la. Mm-hmm. ak Ababacar Fall. du hasard sax ndax weeru avril lañ nekk te itam jëf ji mi ngi xewee woon le 22 avril 2012. mbir mi li tax mu gën a doy waar euh, mooy Abdel Malik euh, dafa nekk au cœur de l' actualité donc te di question bu sensible mais problème bi mooy euh, jëf ji am ni ñu ko reyee ni ñu procédé ah, ak koor gi nu nu ko jéemee acheminé. ngir doxalee yéef yi de telle sorte que maanaam du mën a feeñ. waaw ñu nëbb nëbb nëbbal waaw lu tax mhm. lu tax nu koy nëbb nëbbal. lu tax nu koy nëbb nëbbal. ak lan moo sax kalaati mbir mi. waaw. waaw na mënoon nga kon mbir mi fi bu bu bu bu ko yàlla maanaam euh, euh, leer bu bu ko yàlla maanaam dugalal woon maanaam mbir mi siwee ni kon mbir mi naroon na woon am. xam nga moom mooy point bi ñu war a bàyyi xel. kon cela veut dire am na ñu ne ci réew mi attan nañ def ay doomi aadama lu doy waar nëbb ko. waaw nëbb ko. absolument. Hmm? te ak lu mën a xew itam lii du lu gën ci sunu réew du lu gën ci image yu maanaam tey jii nii euh, Sénégal. ci ay doomu aadama wax dëgg fa yàlla ak fi jamono toll. Mhm. doon na jëf joo xam ne moom. lu nu war a naqarlu la ndax yàlla dafa teral doomu aadama waaye tamit doomu aadama xëy na léeg-léeg tamit daf yàlla wax ni tamit daf ko bind ci faiblesse ci matadeem waaw mhm. waaye tamit yàlla noonu yàlla gën a xiir daal dimbali ñu bu ñu mën moytu yenn yi ndax bakkan dafa foor wax nga ko léegi mhm. maanaam vie humaine dafa sacré mhm. waaw yow dundaloo bay rey donc am na loo xam ne war nañ ko mën a moytu donc question bi lu sensible la ñaar ñi seen bakkan dem ñu ngi leen di ñaanal fa nu nekk gënu leen fa nu jóge ndax ay jullita dem ah muy Ababacar ak euh, Baara Sow waaye li ñu mën a wax daal comme ni ma ko waxee léegi mooy mbir mi ba tey noppee guñ ca ndax mi ngi loxo justice mm-hmm. mm, maanaam sentence gi féeteegul fenn mm-hmm. effectivement actuellement cheikh bi moom mi ngi France on l'a mm-hmm. jugé par contumace parce qu'il n'est pas présent donc pour des raisons de santé dafa nekk sous contrôle judiciaire ñi fi nekk te teewaloon ko fa teewaloon seen bopp itam ndax dañ leen ci cité ñoom nangu nañ jël responsabilité que maanaan du cheikh bi kon bu dul cheikh bi léegi nañ ñu wax ñan la mhm. waaw ja jar laaj jar laaj loolu day tamit euh, muy muy muy lu doy waar maanaam euh, ku ñu jugé nag par contumace en général doo am ku lay layal normalement da ngay dañuy jugé te doo am avocat bu lay taxawal loolu nekk lu day waar tamit moom moo tax sax tout à l'heure may laajte est-ce que jarul ñu xaar ba euh, cheikh bi daal di teew ci Sénégal daal di ñibbisiwaat ci soog a soog a mën a def procès bi. comme comme euh, peut-être ñi nga xam ne noonu lañu koy gisee en général ci procès mhm. maanaam euh, avocat de la défense ak avocat de de de la partie civile maanaam ñu ñu confronté wu waaye nag euh, yàlla def na ne Cheikh Béthio nekku fi Cheikh Béthio Thioune nekku fi mhm. def nañu procès nee nañu par contumace te li mu jaaxal moom mooy justement loolu ku ñu jugé par contumace da am ku lay layal est-ce que dina mën a am possibilité défendre boppam après mhm. Euh, jërëjëf Abdel di jaajëfalaat bu baax a baax yaa Moussa ci taxaw seetlu bi mu indi ci affaire coowal madinatul salaam bi ndax euh, ñëw na ci ay faram-fàccee na ko ci anam bu mucc ay mais par rapport ak question bi nga laaj ni est-ce que warul jot nag wala est-ce que du nii dañu waroon xaar ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune ba mu wér ngir ñu doog a dugg soobu ci li nga xamante ni moo di procès bi ndax dafa indi fàttali bu am solo dafa terowaat maanaam àtte bi dafa ñëwaat ci weer wi nga xamante ni xëy na ca la jiyee joxe woon mu nekkoon le 22 avril 2012. ci noonu nag niki bi ñu dégloo ñi nga xamante ni ñoo doon fukk ak juróom-ñeenti accusé yi dooroon nañu ñu ngi waxoon ni dañuy door ñi nga xamante ñoo di témoin pour dikkaat ci ñi nga xamante jugé nañ ko Cheikh Béthio Thioune par euh, contumace gis nañ ni aussi dañ ko placé sous euh, contrôle judiciaire mm-hmm. mais ci biir nañ ko placé sous contrôle judiciaire Abdel bokk na ci aussi bu fekkente ni tamit dañ la dañ la jugé par euh, contumace gis nañ ni aussi dañ dañ la fas yéene encore rejugé waat ci yeneen prochaine session pour dire que dama damay rejoindre ci côté boobu noonu pour dire que maam Cheikh Béthio quoi qu'il en soit même bu fekkee dañ ko jugé par contumace aussi nañu bàyyi xel ni mënul mucc ci toog maanaam ak yoon ngir ñu mën ko déglu parce que quoi qu'il en soit mu tane te tane sax nag lañ koy ñaanal suñu borom bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy les accusés déglu nañ leen même bu ñu dégloo les témoins aussi mën nañu wax ni Cheikh Béthio Thioune ci bu ñu ko lalee ci li nga xamante ni moo di yoon déjà il est placé sous contrôle judiciaire il sera obligé ñëw ñu rejuger ko parce que tane na parce que il faut mu def benn face à face entre moom ak ki nga xamante moo di juge bi pour dire que juger ko nekku ni loo xamante ni day tax après buñ ko juger par contumace jeex na quoi juger nañ les accusés dañuy xool ki faat ñu tëj ko déedéet moom quoi bu ñu tëjee ñenn ci ay accusés il sera obligé mu def benn face à face ak ki nga xamante ni moom mooy le juge parce que dañ ko juger par contimence parce qu'il n'est pas là dafa feebar am na raison yu tax mënul teew pour dire que aussi ñu bàyyi ko xel nekkul dañ koy juger contumace après jugé nañ ko contumace jël nañ dogal ñiy lavé nañ ko à grand eau nee nañ defu daal mais aussi bu ñu fàtte ni ci ñi nga xamante ni ñoo doon accusé yi ku ci mel ni moom il a avoué ouvertement que ni moom mooy ki nga xamante moom moo tiré kenn ci ñi nga xamante ñoom ñoo faatu pour dire que ki ki avoué ouvertement ni kat man faat naa kooku tamit yaakaar naa ne dina doon ñi nga xamante ni ni dina mucc ci daan yi nga xamante di Bara Sow loolu aussi bëggoon naa ko boole ci par rapport a taxaw seetlu bi ñuy am ci coowal li nga xamante ni mooy affaire Médinatou Sam te loolu dafay rejoindre ni maanaam procès bi dafa nekk procès boo xamante ni wallaay mën nañoo jàpp ni jeexagul vu que aussi jugé nañ Cheikh Béthio Thioune par contumace il obligé d'être rejugé ci yeneen session pour diir que maanaam coow li affaire bii nii wax dëgg yàlla dafa nar a tour euh, euh, tirer à longueur ah, encore mm-hmm. loolu ñuy wax rek maanaam justice bu Sénégal moom wax dëgg yàlla jot na daal ñu ciy teef euh, càmbar bi war xool nu ñu war a mën a gaawalee mbir yi ba nga xamante ni ku ci rek di nga xam maanaam fi ngay féete loolu daal amoon na it bokk na ci li nga xamante ni bëggoon naa ko sof par rapport ak li nga xam ne ab euh, wax nga ko comme laaj ak li nga xamante ni Yaa Moussa indi na ko ci ay faram par rapport ak coowal euh, affaire médinatu Salam ci double meurtre bi. yaa Moussa nee na ndax dafa concerné benn kilifa bu nekk ci ci les personnes citées loolu moo tax mu tiré en longueur mais euh, gis nañ fi tamit ñoo xam ne euh, nekk ñu ay kilifa maanaam ay sénégalais lambda lañ te ñu ngi am problème pour ñu juger leen parce que euh, nag ñu ngi ci detention boo xam ne xamaguñu kañ la app bi di jeex Euh, tamit moo tax ma bëgg la rejoindre justement ci sa ci sa ci sa alerte boobu ngay ngay euh, ngay ngay wax maanaam par rapport ak la justice sénégalaise ñuy euh, farlu bu baax ci détention longue détention yi ndax. parce mm-hmm. nag peut-être dina jur yoo xam ne. duñ ko euh, duñ ko sax njort ñoom te pour pourtant nag mën nañ cee def seen kéemtalaay kàttan de telle sorte que euh, mbir yi daal di euh, féete boor ñu mu gën a gaawee. Mhm. balaa ñuy tëj maanaam procès bi léegi ma bëggoon ñëw ci benn mbir bu xewu démb dañu tijji benn carton. tijji benn carton génne ci ay yëre maanaam ñu ne yëre baara saw la ak benn dem si yàlla si ak ay gànnaay ak ay bagage daal yëre wane yëre bi. Euh, mu tax deret ma ne nag euh, sa sama sama sama interpellation mooy Sénégal lañu nekk am nañ ay réalité est-ce que jaroon na ñu koy euh, génnee maanaam yëkkati xool xoosaat góom boo xam ne commencé woon na tane ñu yëkkati ko maanaam cicatrisation bi commencé woon na seen ñoñ maanaam ñoom ñoom ñi nga xam ne faatu nañu ñu nga woon ca ca biir salle ba ñu daal di génne seen yére est-ce que loolu du tax. ay affaires yoo xam ne peut-être commencé woon na wàcc daal di daal di jugaat ci kaw est-ce que euh, dañoo war a tamit comme en tant que sénégalais topp trop euh, façon de justice boo xam ne euh, maanaam nasaraan yi ñoo ñoo ñu ko ñoo ñu ko jox est-ce que jaroon na ñuy ñuy ñuy génne yenn mbir yi en public yaa Moussa. dafa am tënk bu ma la bëgg a defal ngir wax ni leen ni c'est important que ni loolu am mënta ñàkk. Mhm. parce que dafa am ay chiffres.

sëriñ Cheikh Béthio Thioune amoon ci mbir mi xam nga loolu njàngat la laaj parce que wax naa la ko léegi lii dafa nekk sujet bu sensible ñaara am soit cheikh bi moo commandité yëf yi ma nga ca soit defu ko mi ngi jël temps mais léegi pour ñu xam ne ne def na ko wala defu ko mais il faut une procédure maintenant dans toute procédure te yoon dugg ci médecin yi dugg ci ay professeur boroom yi xam-xam dugg ci expert balistique yi dugg ci criminologue yi dugg ci donc lii mënta ñàkk ndax tey jii nii dañuy étudier ba étudier environnement bi objet yi ñu utiliser woon même yére bi nit ki soloon sax mën nañ ko soxla ndax lépp mën na rentrer ci cadre yi nga xamante ni daf leen daf daf leen di gën a yombalal maanaam seeni euh, euh, euh, recherche yi ñuy def finalité gi ñu ci jublu donc ce n'est pas excluant c'est vrai donc nous sommes dans un pays comme nous avons bu dee amee dee am na mais génnee mbubb mi yaa ngi ciy sóoraale xam naa de passage tey ay mbokkam yaa ngi ciy sóoraale tey ay dëkkandoom yaa ngi ci sóoraale tey ay nitam ngir souvenir xel yi delluwaat ci yëf yi mu am choc goo xam ne mën na lañ ko def psychologiquement ndax ay doomu aadama rek lañu dee dafa diis te ku sañoon wax dëgg fa yàlla euh, euh, dina am anam yoo xam ne moom lay ñëwee waaye àddina tamit moom doomu aadama boomul bokkam boppam dafa am programmation nu dund demee xam nga léegi nag laaj ji nga laaj am na solo ndax génne ko yelloon na wala yelloon man jàpp naa ni comme fi mu ne ni mbir yi mi ngi ci loxo yoon rien n'est exclu du suñu logique wala suñu njàngat wala suñu analise moom mooy wax yoon defal nii wala defal lële la loi est dure mais c'est yoon wi moom moo koy laaj parce que il faut des enquêtes il faut mener des recherches maintenant aucune issue wala aucune voie maanaam n'est exclue pour ñu atteindre maanaam tey jii li nga xam te moom leen bëgg atteindre mooy ñu xam fi dëgg gi féete ndax ba tey fi mu ne ni dëgg gi féeteegul fenn te mbir yi tamit bu dul dara mi ngi bëgg yàgg li tax mi ngi bëgg a yàgg mooy dañ ciy sóoraale tey njabootu ñi deele waaw njabootu ñi deele dafa am lu leen métti te bëgg nañ xam mbir mi mu féete boor du dëgg waaw ndax Sénégal tamit li nga wax dafa am solo nañ ko lijjanti mu jàll benn yoon mooy li waaye xam naa ni moom du yomb ndax wax naa la ko léegi. mbir mi moom dossier la woo xam ne soxna Fatou sa wax na ko ah mi ngi def mi ngi mi ngi. mi ngi waaw mi ngi mi ngi mi ngi tiré à longueur. waaye nag tamit yoon ma nga ca te comme yoon lan am moom moo war a àtte nañ ko bàyyi ci loxo yoon. waaye nag di ñaan yàlla ak lu mën a xew rek yàlla mbir yi leer. ndax bu leeree moo gën ci ñaari parti yépp waaw te moom mooy gën ci réew mi. wax dëgg fa yàlla. dëgg la dëgg la euh, soxna Fatou. Uh-huh. Euh, exhibition de euh, maanaam wane wane gi ñu wane ay ay ay ay yére wane ba wane ay image su kanamu dem si yàlla si. Uh-huh. dem si yàlla yi plutôt. ndaxte ndaxte ndax ndax suñu suñu baaxu réew man loolu rek laa ciy xalaat ah ci ci ci ay ci waxtu gàtt dama su ma sañoon peut-être ñoom en tant que expert mu yem ci seen biir ñoom bañ ko def loo xam ne day public day day heurte public bi quoi loolu laa ci doon bañ man. Uh-huh. loolu laa ci loolu laa ci xalaat quoi en fait. jërëjëf euh, ci benn côté tamit euh, xëy na foofu aussi des fois xam nga comme ni ko yaa Moussa waxee rek xam nga des fois moom. loolu li nga xamante ni moo di justice loo xamante ni des fois il faut nga tënku ci pour indi ay leeral par rapport xëy na ci li nga nekk ci li nga xamante ni moom nga teg comme gëstu mm-hmm. parce que aussi suñuy wax ay procès wala ñuy wax ay enquête ak yooyu am na lu nga xamante ni élément bu essentiel la ci muy li nga xamante ni mooy ay preuve parce que dafa am ay fait yu nga xamante ni ñoo jot am pour ñu nag mën a teg mbir mi mu leer il faut ñu delluwaat ginnaaw xool naka la xewoon ana la fa xewoon ana lan moo fa nekkoon parce que waxuma la sax ci réalité Sénégal da ngay des fois film bu benn mbir amee nga gis yi ñuy en place ñi nga xam dañu coopérer ak li nga xamante ni mooy justice pour indi ay éléments de preuve yoo xamante ni dafay permettre ñu gën a euh, élucider li nga xamante ni moo di fee xëy na nag mënuñu ko occulter peut-être nag xëy na ak jamono bi ñu toll nii pour ñu am accès ci loolu wala ñu koy gis ci télé wala ci vidéo wala ci YouTube dafay yomb parce que technologie moo egg foofu mm. tellement pour xamale ak nit ñi parce que man loolu des fois man damay jàpp ne lu intéressant am importance la par rapport ak le citoyen lambda qui ne comprend absolument rien de ce qui se passe

nit war nga xool bu baax li ngay def ak foo koy defee ak noo koy defee ndax heure boo ko defee comme gis nga ni nit def na ko tey jamono dox na ba nit bu ko defee dañ koy exhiber ñëpp di ko gis ñu xam ni kat ay preuve la am pour mën laa àtte yaakaar naa loolu aussi jàngat bi ñu ciy am pour bu positive loolu la war a mën a doon ngir kat boo ko gisee man mi kat tey bu ma defee ndekete lii ëllëg buñ may àtte mën nañoo indi lii kat ñëpp war nañ koo mën a gis kii ak kii dina ko gis pour dire que loolu day mettre à nu li nga xam xamante ni mooy maanaam manière bi nga xam ne noonu la justice di doxee manière bi nga xam ne noonu la ñuy procéder pour am ay preuve pour interroger nit ñi pour am ay enquête parce nag daan moom boo koy technique wax dëgg yàlla àtte suñu borom bi rek mooy ki war a mën a àtte mhm. mais tamit booy àtte nit aussi wax dëgg yàlla teg ko ci norme teg ko ci règle teg ko ci ay preuve yu leer yoo xamante ni tey kii daan bi nga koy teg dafay doon lu mu mérité parce nag moom moo def xëy na loo xamante ni waru ko def pour dire que maanaam daal ci wàllum justice xëy na nag niñ koy exhiber peut-être am na ñoo xamante ni xëy na dinañ ci am beneen jàngat xëy na lii maanaam daf dafay dafa ragal lu wala maanaam dafa tiis lu triste la waruñu ko wane mais aussi war nañ ci am beneen jàngat beneen taxaw seetlu mooy ni kat dina permettre tey société bi le citoyen lambda mu mën a am benn découverte bu bees par rapport ak ni nga xamante ni noonu la justice di évoluer nii la ñuy amalee enquête parce que des fois nit day wax ci wàllum justice ni ñuy àttee te wax dëgg fa yàlla ñàkk cee am xam-xam ñàkk cee gis naka la mbir mi di procédé nan la ñuy procédé ci affaire àtte yi des mooy tax léeg-léeg sax ñu wax bay wax loo xamante ni mm-hmm. maîtriser mm-hmm. wuñu ko rek laa ci war a mën a am pour ni duñ loo xamante ni lu xam ne xamul nga xamal ko nii lay demee xëy na moom bu xam ne bu fekkee am na xel mu sell moom kat dina ko permettre sax xëy na muy éviter di dugg si lu mu warta dugg wala muy éviter di def loo xamante ni après xëy na mën na ko jural leneen parce que bari na fi nag qu'on se dise la nit yoo xam ne def nañ benn mbir tey ana lan moo leen lan moo tax ñu xam ne di def benn parce que ay preuve lañ fa bàyyi ay traces il ñu indiwaat ko a élucider ne moo di affaire coowalu li nga xamante ni moo di Médinatul Salaam bi Abdel Malick. car macha allah am na am na solo trop euh, ñu euh, daal di njort rek ne yàlla dina indi euh, mhm. maanaam li nga xam ne lu leer la ba mu dugg ci xelu nit ñi ak ci ak ci ñëpp ñu ànd ci ak dal nag ba lépp ñun rek la Sénégal sutura la ñu xamee mhm. Sénégal teranga la ñu xamee donc dañu jëm rek suñ kéemtalaay kattan daal tënku ci ci mbir mbir yooyu mu daal di nekk loo xam ne euh, loo xam ne du du du gaañ Sénégal trop c'est vrai que am na euh, ay nit yoo xam ne faatu nañ ci waaye nag euh, car macha allah ñuy ñaan yàlla rek yàlla yokk ñu sutura ci mim réew ma daal di après maanaam procès Médinatoul Salam bi ñu daal di jëw ci suñu deuxième actualité actualité en débat maanaam ma fàttali que actualité en débat ay. ay mbir la xam ne dañ koy waxtaanee ci actualité saillante de la de la journée maanaam deuxième actualité bi démb la euh, démb la woon euh, ci ci conseil des ministres Macky Sall président Macky Sall daal jël ay dogal daal di ne euh, tabb naa ay poste de direction maanaam ci ci ñuy liggéey yëpp. am na euh, ay directeurs yoo xam ne nommé nañ leen am na yoo xam ne changé nañ leen maanaam euh, ma seddu ci vingt huit nomination comme ni mu ko waxee sànq te euh, mu am ñetti soxna yoo xam ne nominé nañ leen ci ci direction yi nga xam ne ci ci Sénégal gi la ñu nekk war war ci liggéey bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne ni ñu ko jàngatee mooy maanaam président Macky Sall. continuer na di caser maanaam di dugal ay ay ay ay ay ay àndandoom ci ay poste ay poste yoo xam ne ay poste de remerciement la ay poste yoo xam ne ay poste de euh, yoo xam ne daf leen di fa def pour euh, pour pour pour pour jaajëfa wala pour pour pour caser leen de d'une manière stratégique ndax ay àndandoom lañu ñu woon euh, loolu nekk loo xam ne peut-être mën nañ cee poser tamit question ci ci ci mbir yooyu nomination yi ñortoon nañ ne dina am mais nag mu nga gis nañ ko ñun ñëpp lu ñu ne que ne de plus en plus de nomination de plus en plus euh, ay nit yoo xam ne peut-être que euh, xaaruñu leen woon maanaam euh, mën naa ci jël exemple Modou Diagne Fada maanaam donc ñeneen ak yeneen ay mën nañu cee wax daal lu bëri ci ci ci nomination yi nga xam ne président Macky Sall jël na dogal bi dégg nomination yaa Moussa direction yi nekk. Euh, actualité bi tamit ci ci ci ci depuis depuis démb ñu ngi koy waxtaanee maanaam euh, fast track Macky Sall bi ak euh, point yi muy teg benn par benn nan nan nga ko gisee yow. waaw li ma ko gisee mooy daanaka ni nga ko tënkee xëy di wéy xëy di wéy rek di jubal waaye mais fan nga fan nga jëm. waxtaane woon nañ fi nomination ministre yi. <laughs> Mhm. ba junjoon nañ ni. am na ñoo xam ne wàccee nañ leen waaye fi mu nii euh, hmm. waxaguñ fu ñu féete. Hmm. jamono dox na ba nomination amatul. waaw démb ci conseil des ministres moom euh, au titre des mesures le président de la république a pris des décisions. Hmm. donc mu am ñu mu relancé waat ci yeneen i département def leen directeur général bokk na ci ci gën a fës mooy. sëñ Modou Diagne Fada. waaw Ka Modou Diagne Fada nag. Euh, xëy na ñu bëri dinañ ko tudd. Mhm. ñenn ñaa ngi naan sax la. Mhm. man yàlla dogal na ci màggal Daaru Muxti bi daje waaye duñ doon waxtaan lu jëm ci mbirum jëm borom daaru njabootam waaye ak taxawaay gi mu am ci département foofu noonu Kébémer. Kébémer gi waaw. waaye yàlla dogal na tey jiital nañ ko ci Sonacos bi. moo jaan fa de dafay remplacer maam Pape Alé bi. waaw Pape Alé bi moo nekkoon DG Sonacos moo jaan de moo jaan fa de moom mooy DG Sonacos yaakaar la ci am par rapport xëy na ak compétence am par rapport ak dossier yi fa nekk. Mm-hmm. jàpp ne lu war na mën a relever le défi war a mën a assurer tey jii nii euh, wala atteindre euh, niveau euh, bi nga xamante ne tey bëgg nañ Sonacos àgg fa ndax ku ne xam na ne tey jii nii coowal gerte gi am na problème trop. Mm-hmm. on a beaucoup tendance à utiliser tey jii nii des huiles venant maanaam d' autres importation bi waaw te tey lu ëpp sax ci suñuy gerte ñun ñoom lañ koy jox tubaab ñoom ñoo koy exploité defar ko ñoom muy non-sens bu doy waar. xam nga paradoxe boobu tam li tax na insister ci Kambour Diagne. moom mooy que moom dafa am défi ak challenge bu doy waar bu nekk ci kanam. mais parfaitement parfaitement. c'est important parce que fan ngeen defal Sonacos est-ce bayee gerte gi di ko fi euh, defaree. mu doon diw nu ko fiy jaayee. waaw boo compter sax pourquoi nekk un pays exportateur. ni Côte d'Ivoire amee tey jii nii cacao mu nekk un pays exportateur waaw ñii defar café ci àdduna gi ku ne xam ne Côte d'Ivoire taxawaay ko ci am sans moom jënd na ci ñun ñi ñu ciy naan café waaw donc Sénégal il est aussi tey jii nii ses ressources a defar day jaay ñeneen mën na waaye nag defar sa gerte mhm. ñàkk am loo ko exploité di ko jaay ñeneen ñeneen di ko exploité ñoo di la ko ñoo di la ko dellu soit xel na ngoo ko mhm. kon mun jaañ fada bu fekkee récompense la itam gis-gisu ñenn ñi la mhm. man li ma ci am mooy kenn ku ci nekk fal ngir la fal jàpp naa ne tu es responsable ndax Abdel Malik nii du ma ñëw fii ne la bërëb sàngam dama ko bëgg a teg ci sa loxo boo dul naa fekk te dëgg te bëgg liggéeyal sa askan boo ko mënul di nga jël boo ko mënul di nga ne ah waaw wax dëgg yàlla mënu ma si dara waaw loolu moom loolu lay loolu lay nit man je pense bien que ñi ñu fal ay responsable mm-hmm. te ñemewuñu engagé tey ay poste mm-hmm. te pare wuñu léegi ñu ngi pour relever le défi. Mhm. pare pour assurer tey émergence bi nga xamante ne tey ñu ngi koy chanter émergence bi nga xamante ne bëgg nañu ndax fast track la ñu wax. Mhm. Sénélec tamit am na ko lu fa jiital. ñu mhm. Pape waaw effectivement ndax ka nekkoon dafa nekk ministre de. Mouhamed Makhtar Cissé yóbbu nañ ko ci. ministre pétrole ak kii. moom Mouhamed Makhtar Cissé ku ne xam na ni moom dañ fa yàlla il n'est pas n'importe ndax li tax ma wax ko moom mooy jëfam ak chiffre am ñoo ko wane. ñu yóbbu ko pétrole beeg. gaz yi nga xamante moo nekk coow priorité moo nekk priorité <laughs> waaw waaw dëgg la. priorité mag yi la bokk de. Ah, waaw gaz mag yi deux bi waaw ci priorité la bokk ndax gaz ak pétrole boobu noonu nag ku ne xam ne te ñu ngi ciy yaakaar sukkandiku ni Libye barki Demba Ndiaye à travers Kadhafi amee woon benn autonomie. Mm-hmm. vis-à-vis maanaam des puissances occidentales. Ah. yeneen i post tamit continuer na ndax ki ñuy wax abu Aboubacry Sow. jox nañ ko lu ñuy tuddee SED mooy aménagement des terres du delta et de la vallée du fleuve. dëgg la moom lañ fa jiital. Pape Demba Diallo jox nañ ko fonds six bi mooy fonds euh, moom des fonds souverains mhm. investissement stratégique. Mhm. li tax ma mooy ñi ñuy xëy na jotuñu actualité bi. effectivement wala nañ ni am na yenn postes yoo xam ne ñeneen fan lañ mais baax na bu ñu toog waxtaan la ñuy waxtaan dañu ko xam. dañu mhm. fa jiital ñu wax ko ñu xam. wax naa ko léegi Sonacos léegi ki moom mooy Modou Diagne remplacé na fa ki ñuy wax Pape Alé Niang ma fa newoon. Pape Demba bi tey moom moo nekkoon euh, ay jamono euh, moom électronique ingénieur électronique. ingénieur la waaw moom moo nekkoon nag euh, moom moo moom lañ jiital léegi ci Sénégal mu remplacé Mouhamadou Makhtar Cissé. Mouhamadou Makhtar Cissé léegi moom lañ jox mbirum pétrole beeg gaz bi. bu nu wëyee tuuti Siré Dia ma ne woon poste. poste dindi nañ ko fa léegi yëpp def nañ ko PCA hmm. Abdoulaye Bibi Balde. nekkoon na fi ministre. parfaitement. moom yëpp nañu ko poste. mun a financé facile. mais coow li tamit mi ngi ci Mamour Diallo. Mhm. Mamour ma am coow ak Ousmane Sonko. te dossier boobu leerul. Mhm. dindi nañ ko directeur impôt et domaine. Mhm. am na feneen fu mu. ko yóbbu waaw. waaw ma indi ci leeral Mamour Diallo yóbbu nañ ko su ma juumul. Euh, Mamour Diallo waaw. kii yóbbuñ ko. Ah, mais wàccee nañ ko. wàccee nañ ko mais joxaguñ ko benn kii eh, pour second second conseil des ministres. il se trouve que jàpp nañ ni war nañ ko mën a mën ko waaw léegi foofu tamit dafa am coow lu baax. Mhm. ndax ku ne xam ne moom fi mu ne dossier dafa nekk ci dafa nar a dem justice. waaw ci coowal 94 milliards. Mhm. diggante moom Sonko lu tax ñu wàccee ko ci impôt domaine bi mu nekk. Mhm. échec la wala du échec. rawale la wala du rawale. rawale la wala du rawale. <laughs> jar na beneen débat ngi <laughs> donc nomination yi bu ñu fi toogoon di ko lire fii la nii. waaw waaw ndax temps bi a am ndax tey Sénégal ma ko woon ñàkk ba ñu tudd ngir leeral ko. Mhm. di dugg ci waañ bi tamit diw bi dañ koy soxla. soxla ko si a exploiter seen gerte gi. <laughs> di a consommer ba di ko mhm. ñu koy jënd di ko exploité waaw loolu loolu kay xel xel mënu ko nangu loolu moom Sonacos léegi Modou donc ay la yoo xam ne ñaari jàngati ci am rek ñaari ndax Macky Sall dafa euh, récompense ñi waaw benn bi. sanction la jëlee. Uh-huh. wala tamit dafa jàpp ni ña fi newoon la mu bëggoon atteindre ñu ko. Uh-huh. il faut mu indi ñeneen mais tamit beneen jàngat gi ci am mooy bu ngeen seetloo ba tey moo xam ministre moo xam DG ñuy nommé gisagu nañ ci présence opposition. <laughs> waaw opposition dañ na am totalement dëgg dëgg dëgg la waaw Soxna Fatou jeu des chaises musicales uh-huh. récompense euh, sanction lan lan la pour yow lan la la inspiré <laughs> bon jërëjëf euh, Abdelwahid jaajëfalaat bu baax a baax yaa Moussa ci taxaw seetlu bi mu indi ci niki démb li nga xam ne gisee nañ ko son excellence monsieur Macky Sall ndax avant muy def loolu am na noo xam ne noonu la njëkkoon a procédé maanaam teg benn gouvernement bu yees am ay coppite ay dugal génne ay taf yëngal yooyu taf jaay indi jóob maanaam dugal kii génne kii mais ginnaaw loolu gis nañ aussi niki démb tamit ci conseil des ministres bi ci lël ba ay nomination yu ñoo xamante ni dañ leen jëlee am ñoo xamante ni dañ leen indi am ñoo xamante ni xëy na doo ñu woon ay indi leen fi comme ni euh, euh, yoo xamante ni mënuñu leen a occulter ci ay taxaw seetlu ku ci mel ni Mamadou Mamour Diallo sanction wala du sanction mais quoi qu'il en wax dëgg fa yàlla ba tey ñi njort ni sax ci second conseil des ministres bu ñu war a mën a amal war nañ koo mën a tabb leneen waaye yaakaar naa ne laataa ñuy tabb leneen wala keneen ci leneen ku ci mel ni Mamadou Mamour Diallo mhm. dafa am benn coow boo xam ne dafa jib ñu gàllu ko ci ndoddam lu toll ci milliards yoo xam ne nañ kat daf ko détourné ne daf ko luubal loolu aussi dama yaakaar ni laataa ñu koy tabb leneen comme xas nañ ba jox ko ba jële ko ci ndombal tànk ba mu nekk laataa ñu koy dénkaat leneen li gën a leer ci bopp askan waaye lii gën a rafet pour man son excellence war ko mën a def war na mën a bàyyi Mamadou Mamou Diallo ak ñi nga xam ne ñooy waa assemblée nationale ak seen commission bi ñu teg ak Ousmane Sonko ñu saytu ko ba am suite par rapport ak dossier boobu ba pare ñu xool kat ana lan lañ koy dénkaat leneen donte ñii nee nañ du dëgg ñii nee nañ dëgg la quoi qu'il en soit am na liggéey ne yaakaar naa ne ñi ngi ci rapport ak loolu ku ci mel ne Diagne Fada ñu ne kat par rapport euh, ñi nga xam ne ñoom lañ duppe woon les transhumants gis na ni moom lañ ci xëccagum ci koo xamante ni war nañ ko mën a dénk dara xëy na ngir dalal xel peut-être pour dire que son excellence mi xëcc nànk-nànk di dugal nànk-nànk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jàppale parce que niñ ko duppee tey sax bari na ci ni maanaam dafa daal di ay bonbon daanni kat dafa jox ay ndàmpaay ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon ay alliés bi mbir mi di metti bi mu nekkee ci terrain bi bi muy def campagne ñoo ñoo ko taxawoon doon ko koy wax fii naan ba xam gouvernement bi dina yokk wala du yokk que gis nañ fi ay yu nu def ministre pour dire que y a des postes vacants yi nekkoon en place yu vide il fallait que nag vraiment mu jël ay nit teg leen fa ana yan genre nit la fay teg tamit ba xam compétent nañu par rapport ak euh, domaine bi ñu leen jox ba xam compétent nañu par rapport ak poste bi ñu leen jox comme ni mu ko waxee yaa Moussa ku ci mel ni Diagne Fada wax dëgg fa yàlla même bu fekkee dañ koy jàppee comme transhumant dañ koy neexal pour dëfal ñi nga xam ñoom ñoo mm. na lu rëy dëgg yàlla ak coowal gerte baykat yi sonn jàppal bàyyi lu ne ñu koy dégg te naan Sonacos ana ban liggéey man dégg naa yenn poste DG yu ma dégg démb man dama naan hmm. ne ca la am ci train de vie ah société bi loolu aussi nañ euh, ki nga xam ne moo remplacé euh, Makhtar Cissé kii Pape Demba euh, bi nga xam moom la Makhtar amee woon mu di Sénélec mu nekk aussi lu am solo courant yaakaar naa ni kenn mënatul dund sans courant ndegam yeneen dëkk yi ngay dem duñ sax coupé ndax bu ñu coupé seconde bu ñu ko coupé am na ay milliards yu ñu yàq loolu bu ñu ko fàtte aussi am na dëkk yoo xalaatuñu di def li nga xamante ni moo di coupure di def ay délestage ku ci mel ne Pape Demba bi tey peut-être mën nañu am ci moom yaakaar comme ni ñu amee woon yaakaar ci Makhtar Cissé ba nii nga xam ne moom lañ ko nee parce que bu ñu xoolee li nga xam mooy cursusam maanaam jaar-jaaram gis nañu ku yàgg siège la ci maanaam kuréelu Sénélec presque def na fa ay 15 ans yooyu pour dire que maanaam mën nañu jàpp moom xëy na jox nañ ko poste bi nga mm-hmm. xamante ni mooy yer am na benn mainmise par rapport ak li nga xamante ni xëy na dénk nañ ko te jàpp nañ ni dina ci indi ay ay càmbar ak ay saafara par rapport ak attente ñi nga xamante ñoo di société bi mais par rapport ak Abdoulaye Sow euh, Abdel Malick man kooku laay def benn taxaw seelu aussi ki nga xam ne dañ ko jëlee ca fédération foot daal di yóbbu foofu nga xamante mooy kudd des fois ki nga man mu ngi mel ne ngay jaay ngooñ boo jaayee ngooñ ñu jëlee ni la mënatoo jaay ngooñ demal ngay demal demal demal ngay ngay ngay lan ngay rooti ndox <laughs> des affaire yi dafay xaw mel ne du am benn link. loolu aussi nit boobu noonu. Mm-hmm, mm-hmm. profil yooyu noonu. tamit des fois est-ce que du ñuy aussi ki nga xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi évoluer xam nga tey ku ci mel ne euh, Pape Demba Bitèye boo xoolee cursus am ingénieur daan na liggéey Senelec def na fa ay at kooku bu ñu ko joxee bopp Senelec sa xel war na mën a dal mm-hmm. mais koo xamante ni fédération foot la nekkoon nga jël ak université xam nga am. waaw ah, mais am na qualification jàpp naa ne am seetlu bi kii def xam nga moom dafa wax ni. gerte gi Abdoulaye Abdoulaye c'est un administrateur ah, civil. waaw jàpp naa ne peut-être question euh, d'administration la rek. oui je pense bien qu'il n'y aura ah. pas de problème maanaam pour gérer maanaam une administration. Mm-hmm. Mm-hmm. mais taxaw sa la c'est important. c'est vrai parce que au Sénégal dafay nduru ni souvent. lu waay do waay neex doon daal. peut-être man dama jàpp ni ñi am chance jaar école nationale maanaam d'administration. tu peux ne pas avoir maanaam des problèmes. maanaam mm-hmm. ci ah, question pour gérer administration. nag euh, tubaab dafay wax ni quand on est maître dans un domaine il faut accepter d'être élève maanaam dans un domaine. que boo gisee li Fatou soxna Fatou di wax ni li tax mu important mooy que ni war nañu jàngat échec yi bëri lan moo ko war a ci yenn département mhm. par rapport ak ki ñu fa jiital. ak li mu jàng ak li nga xamante ni moom lañ ko jox ngir ñu gérer ko. jar na mhm. jar na jar na laaj bu baax maanaam euh, question yaa ngi fii euh, dafa fekk rek ni waxtu wi moo ñu moo ñu moo ñu dab. car macha allah taala waxtaan bi neex na waaye nag euh, waxtu bi moo ñu baax a baax a baax ñu ngi ci jégalu di jaajëfal ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel euh, ci Mafatihu Bichri TV international yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, téléspectateurs yi ak internautes yi bu baax ñu leen di ziar bu baax a baax a baax di leen jaajëfal soxna Fatou jaajëf. ba mhm. suba incha allah. waaw jërëjëf Abdel Malick xam naa ñu jox daje mbokku téléspectateurs yi ba ëllëg di am kontaan bu baax di leen baalu àq te di leen baalu àq rek saa su ne waxtu bu ne du ma jug di ko wax di su ne waxtu bu ne baax baax euh, Abdou Khader Dieng sama xarit maa ngi lay ziar di ziar képp ku doon topp télévision ma Fatou Bichir muy tii muy YouTube Facebook fu mu ñu mënti toppee rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax a a baax. jaajëf yaa Moussa jaajëf yow tamit. waaw tàggatoo guddul tàggoo. Mhm. ndax ñun ak yéen moom saa su ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy face to face daal. waaw macha allah waxtaan <laughs> actualité en débat moo xam yeneen yi émission amoon nañ mbégte lool temps bi mayuñu ko ndax xat na waaye ëllëg incha allah incha dinañ gën a dikkaat ci yeneen ponk yi nga xamante ni moom moo soxal askan wi. Mm-hmm. incha allah ak sunu wëllëre sunu soppee mm-hmm. moom Abdel Malick ak Soxna Fatou. Mm-hmm. jaajëf nuyu mbokk te spectateur di leen jaajëfal ci teewlu wi. di ñaanal Sénégal jàmm di ko ñaanal àddina ndax soxla nañ ko am na tëjee rek di sàkku ci ñoom it ñaan wax dëgg fa yàlla ndax suñu devoir mooy di leen servir ci li nga xamante ne soxal na leen mooy dund mhm. askan wi ak li koy jëmale kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam am na solo trop jërëjëf yaa Moussa yii le waaw kay euh, boo paree daal di jublu ci sa ci sa ci sa xewlu bi rek amul benn solo <laughs> ah, ah di jaajëfal tamit euh, Malick Ba mi nekkoon ci caméra yii maanaam car macha allah soxna Fatou naan benn jëb ñetti caméra dëgg la ah. tey sax ëpp na ñetti caméra car macha allah donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, sëñ Malick Ba di jaajëfal tamit nekkoon ci réalisation mooy sëñ Mor le les temps de toutes les générations. da ngay fay de euh, non non damay fay damay fay piraterie. ok moom bu sax euh, ma ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ Mor di jaajëfal équipe technique euh, ma fàttewu Bichri TV international di leen ñaanal ziaral Pape Diaw bu baax. Pape Diaw Pape Diaw maa lay ziar bu baax. waaw car macha allah di ziar Pape Diaw di ziar ñi nga xam ne chaque fois dañuy contribuer. nga baal nga baal ma nga islam donc Serigne Modou Tall fële ca Grand Yoff xar yàlla ci daara mi Tawal Saada maa ngi leen di jox dédicace di sàkku ci yow ñaan di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah ak sunu waa kër itam ndax mënu ma leen ñàkk bañ a sant mhm. ñoom ñëpp ndax tey bu ñu fi toogee jàpp nañ ci daal. jërëjëf jum daal famille Camara gi yëpp. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw pour ah, ceeb rek ngeen bëgg nag ba jarul ko bëri wax wax joom jarul muy bëri daal jaar macha allah donc ñu ngi sant ñëpp di leen euh, euh, ziar bu baax a baax di leen jox dig daje incha allahu taala suba ci euh, midi pour beneen numéro actualité en débat. Uh-huh.